mu def fa nag lu rëy ñu defoon ne benn caabi la yor nekk mu nga yeneen caabi yu mu waxul mu ñëwee mu ubbi jumaa ji ubbi diggante Macky Sall ak Ablaye Wade mu sarale ba jur xalifa sàll génn prison donc loolu ma wax ci télévision ñëpp di ko dégg danaa dem ba ci sëñ Mountakha ma ndokkeel ko ci euh, gërëm ko ci yàlla suturaal na ma toog naa moom wax naa ko lépp ba ca aj ba ca ajjuma ja Macky sàll ñëwee woon ak xat-xat yee ci xewoon ak jikko bu rafet ba mu fa jëfandikoo ak itam yi nga xam ne yëpp def na ko ba ci jumaa ji vraiment ba fii ma jógee Cheikh Abdou Karim Mbacke euh, borom makaarimul axlaax dafa am ay moto euh, pousse-pousse yu mu doon jox handicapé yi lu mat mille cinq cent mu teg ko ci loxo préfet ne ko jox ko ministre de l'intérieur mu jox ko président maa ko dimbalee njabooti yi nga xam ne mënuñu dox dañuy raam mais Abdou Karim dafa wax ne sëñ Muntaxa daf ko ne ku ngeen koy jox wax leen ko ne ko bu ci dox lu naqar yàlla <laughs> mas ngaa dégg bu ci dox lu yàlla kuñ koy jox nay dox lu neex yàlla franchement loolu ci ko toogal diine ak gis ngay ëtt bi ni mel ci bitee ngi julli mbedd maa ngi julli moo jiite julli te am na ñoo xam ne tey bu doon ñoom duñ tal julli waaw duñ tal julli ñu ngi tal mbooloo mi waaye yow moom mbooloo mi da koo tal talu leen mu tal sëñ Touba waaw parce que loolu mooy fayda parce que nit ku ne bu la yàlla dénkee danga koy doxal ak fulla moo tax man mu neex ma ba may wax ci moom du xalifa loolu ko ne xam na loolu may ci moom du xalifa parce que man euh, sëñ bi dama bëgg nitu jàmm dama bëgg koy wax lu baax dama bëgg koy dox lu baax dama bëgg ko gëm lu baax keroog bi loolu amee daf ne sëñ Sidi Maxtaar sama mayee de ma am lu ma leeral sëñ Sidi Maxtaar dégg ko mu waxaat ko mu dog ko dégg ne ko bisimilah keroog la ko ne li fi amoon ci man la maa ñëw rek fekk mu xat ma ne naa daw julli fële jumaa waaw pour defer mu ne nag yàlla du tëral seytaani eh, sëñ Touba ren di ko sëñ seytaani jóg jaare ci man mun taxaar donc muy xalifa bu mat sëkk xalifa ku mën a jël responsabilité li ma gën a neex xam nga Sénégal boo yore yenn responsabilité am na looy daw am looy ragal waaye am na foo xam ni ku fa sës dootoo ragal dara ku sës ci yàlla amatoo looy góor gi ni muy doxalee benn la waaw ni muy doxalee ñeme na engagement ñeme na dëgg ñeme na koo wax ñeme na koo jëf te du ci xool dara bi ci ëpp solo nag mooy nit day ñàkk ndonoom sëñ ba jaral na ko lu ne taxaa jàmm mun taxaa jàmm jàmmi fii jàmmi fële ndax Cheikh Abdoulaye Mbacke nee na lu waaye di bëgg a def ñaana jàmmam